combat bi gaaw na combat bi yomb na lan moo waral lan moo waaw Ouzin man damay liggéey man damay liggéey man amul combat ñàkk combat damay entraîné heure boo ma gisee équipement laay sol heure boo ma gisee maa ngi boot suma sàkk ñii duñu samay morom dañ ma jox samay morom ay rëm ay moor kankang dañ ma jox sama man waxaatal taxe taxe taxe dañ ma ko jox moor kankang ak rëm a taxe bu ñaase yëpp sama morom lañ waaye pare ma sama siis maa ko laq bi jàmm gën waaw que kii du ma moromam kii maa bokkuñu quoi bu mu simee ko nga simee ko sax nga bokkuñu quoi lii du lamb quoi nañ ma jox samay morom ma jëflante ak ñoom ma wane sama bopp man dama mën a bëre bëreegu ma nag nañ ma jox samay morom <laughs>